<laughs> gars yi maa ngi leen bëgg di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay démb gis naa dernière vidéo bi ngeen ko taxawoon ngeen ko laay ngeen ko commentaire ba tax na képp koo xam ne seetaan goo ko mën nga wàcc daal koy seetaan ba nekk nii bëgg naa tamit ngeen ajouté ma ci waaw compte baa ngi nii quoi maa leen xaar kon boo leen dikkee foofu ñu waxtaan insha allah quoi kon ma gars yi nañ seetaanandoo vidéo bi quoi ay ree watas la ne bay bëgg dé quoi ñu dem. non mais li nga sol rafet na nak xam nga xoluma ko won ndoxu ndoxu piis bee bëla manam tof bi nga sol du tofu xalé ñun mag ñam nga tof lañuy wax yeen xalé yeenay wax sama tissu bi mais tof na tof bo xamanteni dé xam nga xétuk tof xam nga pap man suma sañsé waru la jaaxal. deug la. lan lañuy bakké talibé Cheikh. sañsé ak mëna xéñ neex. yow tam waaw. talibé cheikh bu toll ni man dafa toll nan ma sañse sañsé tinga deug la la bëgg di dégg oustaz sañsé tinga nga macha allah parce que moi je suis talibé cheikh macha allah fa tabarakallahu lay xale bi judd ci ginnaw mbay bu ma xamone ni bu màggee ni lay mel keroog bala mbay di dem la koy jir rek deubati ko ba mu mokk rek mu euf ko geej mais nak barki dembu pap bi émission bi jeexee macha euh, ñu jiitlante mak yow di jéggi tali bi mm-hmm. ma top ci sa gannaaw dama mm-hmm. No. modeste bo xam ci yow non yalla xamna na daf ma jëlé kaw mm-hmm. parce que mère bi jaay ndambe ki di sama <laughs> wa légui wax jaay ma rek jaay ma rek maire bi jaay ndambe ci wetu jaaykatu kafe bi fii ci tab kii bi euh, tableau orange bi fa laay guddi gu jot yàlla seede na ni bi ma la tiimee ngay jënd ndambe sama xol dafa sedd parce que modeste boobu ma xam ni jaaykati ndambe yépp amel nañ la njukkal ci sa mbaax sa modeste bari na ku lay séen ci télé bi naan Pape Cheikh Diallo mi ay miss yu lay reeree waaye nga am modeste Pape mën a jënd ndambe mille francs ci ci bool ay waay ay waay oustaz bi xamal na ma waay ay bëgg parce que maire bi dama koy romb tout le temps oustaz Fall man sa fan laa ma ñëw nuyu ko tiim ko gis ndambe bi te man musumaa xam ne fa ngay reeree par émission Pape Modeste googu yàlla na ko yàlla saxal. amiin amiin amiin yàlla nga sax ci jënd nag. na que bu <laughs> je touré la mos a jàpp <laughs> naa mos a joxe sa xam ne ndambeloog mais aw ba ci gerte. maanaam ndambe bi téeméer sa aajo faju mburu cent franc ndambe téeméer. Euh, Pape borom borom borom Mayga yi itam ñu jaajëfal leen. vraiment ay nit yu baax lañ Pape Mayga am na solo lool ci réew mi wallaay Abdallah itam ku baax la. waaw moom daal fëgg rek dugg. rido may nga xam nga amul fëgg. <laughs> amul fëgg de. aj rek na ñuy buum yi ñu jàll def zone rouge yi. rocc rek jàmm <laughs> man bi ma neex mooy. meew mi ñuy jëfandikoo je ferai nga xam ne bu ñu jëfandikoo meew bi. ba pare keleng voilà dañuy jël potu meew bi ci boppam xotti la ko defal la ci sa ndékki. alaaji Pape lekk lekk katu lekk katu may gi yëpp amel nañ dukkal may gi. alaaji Pape boo taxawee commandé ni ko cinq brochettes nenu baxal yàgg nga ci yàgg nga ci yàgg nga ci ba mu posé la question boobu mu lay laaj ci mburu wala ci plat <laughs> dan katanya jinnya pobek kamay awa ko du may galay gala ko dogal ñun ñepp bëgg ngeen dem ko du may galay ci tala te kat man yenn say damay jaay star bu ma laqato du fa bëgg yag su ma ne ci mburu wala ci plat mané sandis ko sandis lagi tab dem kat may gay yalla yang. may ya wër allahumma amin ya ustaz allahumma amin ya ustaz mu ngok nandelok yaangi ma ni benn teraanga jàtt xeeb ku xeeb ku xeebul sab noos daal xaw ma nu ñu koy waxee na ku ne na ku ne na ku jàpp ci noosam te bañ a xeeb <laughs> bañ a xeeb noosam voilà donc jekkatu nambe yi ñu ngi leen di ziar bu baax ku neex gi maa ngi ci buntu may nga <laughs> ci mburu wala ci <laughs> kat Abdallah ma ca Grand mën na tiitaru xeetu bu tiitaru boo xamante ni yenn saa yi mu ne Nene Galle Pape Seck Pape ñëw na mu ne ko wax ma ndànk wax sama tuur bi ndànk wax sama tuur bi ndànk te may Pape li ci neex mooy boo yoree xaalis. sa noos day yokk. wallaahi. ku dégg mu laaj spaghetti journée am doxul. mutadd bi la koy mottalee. wallaahi. spaghetti ba weex tàll. mutadd bi wër ko. laaj parce que tey nga laaj benn am la wallaahi boo banqué ba banque. deux cent vingt sa biir seen xeetu pomme de terre nag xaw ma lu nu koy baxalee waaye bokk la pomme de terre du kër de. yàlla boo fekk kaas yi jeex. pot mi meew mi defoon ñu defal la ci affaire bi. Oh, loolu mën na maa rey journal bi lëmas lëmas jàppukaay bi. tt oustaz nañ dem ci lu sérieux li léegi ci mburu wala ci palaat <laughs> seen mayonnaise nag daanaka diwlin kese la. kenn xamul loolu. wallaahi mayonnaise. Hmm. borom may nga yal na yàlla guddal seen fan. allahumma amiin allahumma amiin allahumma amiin nitu may nga yi ci biir kër yi yal yàlla guddal seen fan. am Sénégal amiin yaa rabbi allahumma amiin jëmee ko ci man ak képp koo bu fekkee pap nga war a seeti kenn yére ya nga demee woon may ga ba foog nga changé ko. ah xet gi. waaye da nga bëgg wax li ma dal barki démb. maa ngi rendez-vous ak Mouride. sama mbokk yi taalibe yi nga xam ne dañ doon jaay photo photo Serigne Touba mhm. a euh, diggante réunion bi ak pare journal Grand Bal xoola lekk naa ñaari palaatu ndambe yu 700 mais ah. soble bu ma la ne bu ma la xoolee sax xetu soble bi génn. <laughs> yéen dama obligé changer yére parfum waat doog a dem ci réunion baak sëñ Xaadim ñu ngi koy ziar bu baax saa yi pap xiif fekk la foo xam ni wallaahi wallaahi moom loo ñaanal may ngay xeb ci mburu wala ci palaat bërki démb Kaolack dama jóge gàmm ñëw ba Kaolack ci ci côté station bi alaaj pap ñëpp tëj waaw ah, waaw quatre du matin mm-hmm. fi ma gestoo ki ma àndal ni ma may gaa ngi nii. mais oustaz xam naa doo dugg may ga ma ne ko looy wax ni ngay dugg may ga pour man doo dugg may ga. alaaji Paap ma agsi ci may ga bi fekk fa ay gaay xam naa ay emprunté lañ ña ngay reer. Eh. kenn kaa ngi naan kii di oustaz Modou Fall ma ne ko mën a. xam gi ngeen ma xam dana tax ngeen dimbali ma ma teel a jënd. <laughs> dëgg la de <laughs> balaa boroset bee jeex. Abdallah bu nee nee na gàlle Pape Seck ñëw na loolu mën naa dagg sama xol barki borom waaye ñu ma ci mburu ma ne ci mburu jërëjëf El Hadj Bab kii nak mom nee oustaz euh xam jigen manam xam li mu woddoo ba pare takk lan la ci lislaam àtte ah, dara ma mos bayyi wala mos doli rek momit it na téy bopam ba nek ba baña joxe bopam avant mariage foku dal kiya amna ah, amna bakaru ku njaaloo waaw ah, waaw parce que kep ko siq ak ta al khair jibul sa ak mom ñom ñaan ñep da nga njaaloo voilà moom bu dee mësul am jëkkër moom ndaw si dañ koo war a dóor téeméeri yar ku ku góor ki bu dee mësta am jëkkër jabar dañ koo war a dóor téeméeri yar. bu dee ñun nag ñi am jabar ba tas ñi am jëkkër am jabar njaaloo rendi mais ñun ñi comme sama genre bi. waaw ñun bu ñu njaaloowee. rey ah! sànni ay xeer ba nu faatu. maa nga yoof ko. <laughs> bu ma fàtte di ñaanal ko comme yow yaa wax li ku sëy ba divorcé bu njaaloo comme man rey fi daaw leen daanaka yoof laa def nii de onze xul wallaa wax te dama cee bëri ay morom ku dëkku yoof ngay waxal nga ne ku mu sa am jabar Je divorcé Je rendi mes voisins sont à allahu akbar eh, c'est vrai parce que les gens ils vivent maintenant ils font ce qu'ils veulent Faut mais comme ça, onze xul wala mérité naa ku dëkk yoof juste mooy def ak yéen émission yoof côté centre aéré bi ay waay c'est mais yàlla dafa bëri yërmande nag oustaz wallahi parce que moom nee na tooñ leen ma ngeen baalu ma baal leen mais ku njaaloo sama xarit léegi am na sama xarit bu ma bind message ne ma kii du waa yoof bi <laughs>